Assane bala ñoo génnaat ba léegi ca biir euh, assemblée nationale. Mm-hmm. ñaari député yi nga xam ne jàpp nañu ñoo wulli woon ndaw sa njaay ba ñu koy toggalee xewar. Mm-hmm. jébbali nañ seen bopp lañ ko mën a tuddee. Mm-hmm. dem yàgg ngi may envoyé vidéo ba léegi yëf di mel ni film waaw ña nga nekk ña ngay kii ak topp nañ léegi nangam sangam ndax jàppoon nga ne lii lépp jaroon na ko. waa jëru ko woon man li ma waxoon rek yaakaar naa ne bañ ne daw nañoo yaakaar naa bu fekkoon ni yóbbu nañ ab plainte seen kër. Hmm. yàgg yàgg dinañ ñëw te buñ ñëwee fekkoon dañoo daw sax dinañ ñëw jël ci plainte te ndax ñoom gis nga ñu toog ñu ne boobu ba léegi ñoom jotuñu plainte hmm. hmm? ñi dañoo daw jeeg dañoo daaw ji yëpp ñoom si rajo yi lañ koy déggee léegi rek ah. mais kenn jotu si plainte xamuñu la xew ñu ñëwee si ensemble ba ñu leen di yër bañ génnee au lieu que ñu jàpp leen mais dañ leen a bàyyee bañ dugg seen oto ñu topp taal ay 4 leen mel na ñu rey nit hmm. wër leen ba si foo kii ak dem fexe jox leen plainte neen wuy si wuy ji leen suba man na yaakaar naa loolu joxoon ko benn waaye mosalub jiinam ti set dem jox leen plainte mi neen suba wuy si leen onseer moo gën a rafet ñu yàq sunum gaz waa daal loolu laa ko teg. d'accord wax dëgg yàlla daal. est-ce que dañoo bëri ñu leen bëggoon a topp xam fu ñu dëkk. da koo jàpp nit ku dem ba doon dippe man mi sax léegi ñoom xam nañ fi ma dëkk di. Hmm. gouvernement gouvernement lañ wax de bu Sénégal ñun ñëpp la ñu xam fu ñu dëkk. ok waaw képp koo xamante ni yaa ngi doon nga député ñoom ñoo la jox ah, sa salaire jox la sa salaire yëpp ñoom dañu laa joxul salaire ah. mais bu ñu la doon jox sa salaire bulletin de salaire ñoom ñu ko hmm. sa bulletin de salaire du am sa dara dara sa benn benn faay bu ko am ok ñoom fi ne tey bu leen neexoon wala téléphone léegi. ñoom waaw carte d'identité yi sa téléphone a ngi si. si carte yi. Hmm. sa téléphone mi ngi si sa numéro téléphone. ok te ñoom ñëpp am nañ sa carte d'identité. d'accord fi mu nekk nii fi nga toog nii ñu ngi lay gis. ñu ngi may gis ni waaw. loo révélation bu wér. macha allah kooku nag bu tey bu nee ñaan dañu dañoo réer ak diw daa def nii diw daa def nii te xam fi mu dëkk xam ensemble nañ dem jox ko plainte bu ñu wuy si ñu laaj ko lii lu ko waral ñu waxtaan. donte ensemble boo demee a euh, si bitim réew. assemblée yu bëri day am xeex day am xuloo day am màttante gàjjante assemblée yu bëri ah dañuy dem sax ba hélénique yi bi dem dàqaat yooyu yëpp day am si assemblée yi kon lii am sunu assemblée sax du fi gan waaw Aïda Mbodj fii bi kii naan Aïda Mbodj sax mag Gaston Mbengue bi nga ko fi ngàddee dafa toogoon kan Aminata Mbengue Ndiaye koo ngàddoon kii eh, Elas xam na ko après incha allah dina ko leeral <laughs> Elas da nga koo xam xaw ma ko nee na ko de alaaj ah, yow asan mënoo bàyyi li ngay yiñ alaaj xaw ma xam na li ma koy wax xanaa damay tooñ ne boo ko joxee dina ko leeral. nee na xamu ko. jox ko rek joxal El Hadj <laughs> dana ko leeral. yow nag say mbir yomb na de xam na ko. ko leeral. damay tooñ nii rek. mi noonu euh, Assane mi ma wax nee na bokk la ki ñëwoon fii kon ak comme ci a doon daal Assane ñu ngi lay ziara bu baax a baax baax mm. alaaji ñaari député yi ñëwoon réer nañ daw nañ ay la yéwén ndekkee ñu ngi fi démb ñëw nañ gannaaw ba nag tey ji la ñu war a wuy ji waaw xam nga son bi son bi nag aay na ko mm. c'est que li tax son bi aay Assane dafa wax loo xam ne bii. nuru xam-xam. son bu te du xam-xam. son bu mel ni ku yéemu. mu ne ko fi toll nii eh, état ñi ngi lay gis son bi naan ko ñi ngi may gis. mu ne ko waaw mu ne ko ah loolu révélation la yow son bu nga taal say caméra waaye balaa nekk ci internet xanaa ñu ne ne. nekk internet

lu waral lii am hmm. am parce que avant député yi bi génn di ñibbi hmm. def nañ vidéo leeral ne mosu ñoo jot benn convocation hmm. ne convocation yi ñuy dégg yëpp waaw ci mbedd mi lañ koy dégg waaye ñoom jotuñu convocation tey dawuñu ku ne ne mi ngi woon këram te gisuñu seen kër ku leen fa indil Mm. benn convocation mm-hmm. daal ne ñoom pare nañ saa yu leen saa yu ñu leen convoqué ñu dem wuy ji mm-hmm. tranquillement comme nit ñi ñëwee ci assemblée mm-hmm. nekkuñu fi di daw ak wut fu ñuy loolu loolu di benn te loolu ñu leen doon jëli jàpp naa ni yëg nañ loolu wala déedéet ah. léegi député nekk ci assemblée génn ba dugg ci seen oto ñu topp leen waaw te bi ñu leen di topp leer na leen ni ñu ngi leen di filmer mhm. léegi lu ñu jublu ci loolu filmer bi ak topp bi mhm. lan lañ ci jublu mhm. mbaa ndax dañuy wane ni ah. dafa am ku ñu soxla wan ko ne ko ñi ngi liggéey gis nga ni ñuy def gis nga li léeg ah. li parce que lu warta am ko yaa ngi dégg mel ni ku nekk ci film waaw mel ni ku nekk ci film mel ni dàqi ne mu daal di tew kërëb kërëb nekk ci otoom ngeen koy topp di jéem a kii ak tamit xam nga vidéo bu nekk après mën nañ ko interpréter nu ne député yaa ngi nii gis nga leen ñu ngi doon dugg ci oto yi di daw kërëb xam nga mhm. tey jii bu ñu la wonoon kii yi rek am na nuñ lay interpréter vidéo bi mu nekk mën na nekk leneen parce que parti yi nga xam ne moom la ñuy taxaw sax mën nañu ko dindi jël yeneen parti yoo xam ne daw lay nekk kii di daw di xandaalu ñu naan mel ni dañoo daw mhm. comprendre nga loolu nag ndax lu Sénégal bi lañ ci jublu wala ñeneen lañ ko jubloo wan. xel ngeen député député yaa ngi nii. Mhm. parce que bul fàtte nag affaire bi nag lu international la. Mhm. loo xamante ni bii nekkul ci réew mi rek. Mhm. mais mën na wér àdduna. tey jii mën na am ñeneen ñu traité neneen information bi jël même vidéo yi daal ne gis nga gis nga niñ ko jëlee noonu. peut-être mën na am keneen ku yor sax. beneen film bu gën a leer. boo xam ne mu ngeen topp ñu dagg parti yi ñuy taxaw yëpp ñokkal yi ñu koy jël. député oto yee daw ñu koy mm-hmm. jël ñu interprété noonu gis nga dañuy daw kii fii la ñu réeree mm-hmm. fekk loolu yëpp mën na ne quoi <laughs> comprendre ça dépend après ci li ñuy utiliser mais daal li am solo démb li ñu ko gis noonu loolu waru fa woon a am mm-hmm. parce que ñoo xam ne bii nee nañ fang mm. ne ku ñu jox convocation dañuy wuy ñun dawuñu mm. léegi lu ci jar yenn yi ah man gisuma lu ko ci jar quoi mm. comprendre jar te karak yooyu yëpp jaru ko dëgg dëgg wax dëgg fa yàlla li ma gis démb moom euh, loolu jaaxle. jaaxle nga ci daal d'accord moom après dama naa baax mais lii pour lii pour lan. ñi xamaa ñoom jotuñu vidéo yi xanaa dégguñu mbiri d'accord te loolu war nañ koo yëg nag. macha allah waaw. ayca